ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين waman tabiam bi ihsaani ila yawmi diin mbokk jullit yi yéen ñuy seetaan ci Prestige TV en direct ci émission leeral sa diine ñoo ngi leen di di leen ziyaara di leen balu àq di ñaan ci yàlla yàlla nangul ñu ñaan nangul ñu jaamu yàlla ñaan ci yàlla yàlla doolu ñu sutura yu ko xéewali mu jaay seydinaa Muhammad sallallahu alayhi wa kilifa diine yépp bàyyiwuñu kenn fàttewuñu kenn waaye nag ñu teg ko ci loxo xalifa bi alxaaji muniru njegéen di xalaaje xalifa alxaaji mohammed njegéen di ñaan ci yàlla yàlla yàlla guddal fanam yàlla sàmm ko suturaal ko mu yóbbaale képp kilifa diine gu nekk Cees di nuyu bu baax tabaarakallaahu képp koo xamante ni nitu aada nga aada nag bu ñu koy wax mooy ñi nga xamante ni yàlla dogal na yàlla may na leen ñu jiite ci wàllu administrative moo xam monsieur le gouverneur le préfet et maire yi fi ne kenn ku ci ne ñu ngi lay nuyu di la ziyaara du nuyu bu baax fa ñu jóge di cité Balabé 2 ginnaaw sampaate di nuyu suñu sëriñ na Jibril Wan di ñaan ci yàlla yàlla na ko yàlla dolli wér dolli ko sutura di nuyu bu baaxit it macha allahu taala imaam Fall mi nekk balaa 2 di imaam ratibu dëkk ba di ñaan ci yàlla yàlla sàmm ko dolli ko wér bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi di nuyu suñu soppe yi nag ñi nga xamante ni saa su ne ñoo ngi woo saa su ne ñoo ngi envoyé seen message saa su ne ñoo ngi taxaw taxawaay bu am solo di ñu encouragé di ñu suivre saa su ne tey waxtaan wi dana dana tëkku ci fàttali leen li fi jot a jaar bala ñu dugg ci beneen bunt buntu boobit buñ ci jaaree ba pare am na ay question yu pertinant yoo xamante ni dikk na fi mbokk jullit yi waaye nag di leen ndokkeel waa Louga soxna Xuja Sàll ca Louga ñu koy nuyu di ko ndokkeel boolewaale ci bu baax boroom këram Mohammed lay ajjuma bi paase da doon tudd doom ji mën lañ ko tuddee kon oustaz Mouhamed lay ñoo ngi koy nuyu di ko ziyaara ci teraanga gi ñu defal tuddee ñu doom ndax xarit dina gën sax doomu ndey waxuma laa ak doomu baay xarit dina gën sax mbokk ndax lañu yàlla boole mu jël doomam tuddee ma ko kon kooku ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla dolli ko wér guddal fanam sàmm ko suturaal ko bi jaay seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah ñun ñëpp ngeen ko defal ñëpp nag bëgg nañ ci waaw ah, ba waa ndakaaru ñëpp bëgg nañ di wax ne nag insha allahu taala mbokk yi bu ko defee rek ñoo ngi waajal conférence insha allahu dimanche ci kàttanu yàlla oustaz Ousmane sek mooy def conférence am ca fayu tali gouverneur insha allahu te ñun ñoo koy taxawe kon képp kuy soppee baa ngay wulëre eh, bàyyi noo leen la xel insha allahu taala délégation bi ñuy andal, eh, balaa ba la ñuy départ insha allahu ak cortège bi ñu ànd jublu dem tali gouverneur ci kàttanu yàlla di wax ni it mbokk yi insha allahu taala bu ko li ñu war a waxtaane tey mooy li fi jotoon a jaar muy chart julli ndax nit ki dafa war a xam li mu doon ndax nit ki war naa xam ci lu baax li muy def ak njariñ li mu mën faa teg tànkam xam ni da ko war digganteem ak boroomam ak digganteem ak moroomam di wax nag faslun fi suruti salaati charte julli taxaaratu xadas laab ci toj wa taxaaratu xabas ak laab ci xabas bu ñu toj nag mooy nga tuur ndox wala nga dem duus yooyu ci la bokk wala nga ngelawal waaye bu fekkee taxaaratu xabas la nag minal badani ci yaram lay doon wa saw bi ak yére bi ngay sol wal makaani ak bërëb bi ngay jaamoo yàlla kon bu ñu ne xabas xabas la parce que baatu xabas mënoo ko fii lu dul da koo toj waaw minal badani ci yaram wasaw bi ak yére wal makaani ak bërëb mu ne it bokk na ci it wa suturatul awra nga suturaal sa awra kon kenn du julli di sol lu la neex way siix baalu xibla nga jublu fa kaaba ga nekk kon du fu la neex jublu kon foo dem xamuloo dëkk ba wala nga fay doog a wàcc war ngaa laaj ne fii fan laa war a jaar ak na laa war a def bokk na ci wa tarkul kalaami bàyyi wax bàyyi wax nga bàyyi wax nga bàyyi wax wax ci biir julli da yàqu julli soo ko teyee wa tarkul afaali ak bàyyi jëf alkasirin bu bari jëf ju bari boo ko defee ci biir julli ba amatoo concentration sa julli day yàqu léegi nag awra ba ndax góor solinam ak jigéen solinam bokkuñu mu ne wa awratu rajuli góor gi lan la war a sor pour jaamu yàlla ndonte lu néew la lu maanaam minimum lan la war a doon ñu ne maa bay na surrati wa rukkubati yi mu ne diggante jumbux bi bu rombee jumbux bi tuuti loolu la war a sol ak ilal rukkubati ba romb bëti oom yi mu ne boo ko defee yow jaam bi def nga li la war kon góor li ko war mooy li muy sol sol gi mu koy sol dafa war a paase jumbuxam paase bëtu óomam waaw moo tax kenn waru koo firi bu tolloog sa bëtu óom déedéet bu tolloog déedéet bu bu tolloog sa bëtu óom bu paaseeg sa bëtu óom bu paaseeg sa bëtu óom bu paasee sa jumbux waaye bu ci yemee kepp rek baaxu moo tax ndeysaan suñu taximaan bi aadama aadama aadama Diop ñëw sol benn pàncaan pàncaan bi nga sol yow boo sëggee bay rukon wala nga toog di taaya boo toogee bay toog ci toog julli gi dangay ngay yëg ni yow ci sa bopp sax personnellement sa bëtu oom yaa ngi feeñ julli nga baaxul li nga sol tubéy ji ngay takk ceinture booy wàcc sa jumbux bi feeñ baaxul kon loolu dañ ko war a bàyyi xel kon góor na paase jumbux bi paase bëtu óob bi waaw bu ci yemee baaxu waaw wal maratu na bu dee jigéen nag mu ne kulluha awratun jigéen moom léppam awra la léppam waaw maadal wajha lu dul xar kanam nga wal këfay nii ak ténq ya kon ndekete jigéen moom xar kanam nga dong moo dul feeñ ak li nga xamante ni moom mooy ténk ya te ténk ya luñ ci jublu rek moom mooy kàbbar ba waaw kabar ba ginnaaw loolu julli gi ci des yépp ténk bi sax c'est interdit waaw foofu kàbbar baa tax ndax jigéen buy kàbbar moo góor ñooyam da ngay tolloog say loxo ni mu def nii mais bu dul woon la sax kafe ni du am mais kabar bee tax kàbbar bee tax tax kon dafa am solo nit ñi xam lépp luy dugg nga xam charte ba waaw tey bari na problème mu tarixa yu am mais taalibe yi fa ne xamuñu charte tarixa ba parce que xamuñu la sëriñ ba bu bëgg ba mu koy defar da ko def ci ay base ne kuy bugg daa am nooy duggee waaw daa am nooy duggee waaw kon dafa am solo ci doomu aadama bi lépp luy dugg nga xam li ñu digle ak li ñu tere sax day am chart waaw alxuraan sax dafa am chart boo demee ba koy téye kan moo ko war a téye ak yan condition nga koy téye ak fan nga ko war a téye ba am na foo xam ne war a sux waroo ko faa yóbbu loolu dafa am solo beneen bi ci des it ginnaaw loolu nee na ku góor ki dañ lay prêter attention wa tukkuru sib nañu salaata ngay julli yow ku góor fi saraawili ngay jullee tuba gi dong mooy liñ doon wax ngay julli bu la neexee mu passé say jumbux tubéy rek man na koo ne mën ngaa bañ a sol julli nga baax mais nag dañu ko sip loolu baaxul te nag lu ñu ko sax moo gën waaw ah, taxul mu aram ah mais loolu nag mooy ki nga xamante exception dafa am ci moom mooy une toute règle a une exception yàlla dogal na yow ya nattu la am loo xamante dal na la mooy amoo benn yére heure julli jot tubéy rek nga am mën nga waaye ki am mbase am ay yére armoire bi fees mu gis benn tubéy julli jot ñu ne ko dagan na ñu ne sib nañ ko bu jullee terewul am na julli nga dem jullee ko mais loolu moom ngeen baal ma mais loolu ku amul teggin la ci yàlla ngeen baal ma ci baat bi waaye ku yabaate muy def loolu waaw léegi nag mu ne tubéy ja nag illaa lusul nag isa kaana ndem nekk na fawqaha ca kawam shay'un dara bu fekkee ne am nga sous nga teg ko ca kaw mais jumbax ba feeñul mais moytul nag souverainement yi daa am ñaar am na boo xamante ni perforé la dafa bënn da ngay gis li nekk ci biir ah mu ne boobu baaxul bi nga xam ne nag day fat ba xam ni yow boo ko defee sa dënn du feeñ sa jumbux du feeñ sa biir sax du feeñ mooy booboo tax ñuy wax waaw loolu moom dañ ko bàyyi beneen bi ci des mooy képp koo xamante ni wamante najjasa maanaam képp ku sobewu saw bu yoreb te nag walam yëjit te amul saw ban yére boo xam ne xëy riihu lu dul moom ah boobu da ngay moom amoo benn yére te da li nga am sobe la mais julleeg la nga am yére ba nga am sobe kon fii yëpp day jàngale ne jullit ci boppam ñàkk a bañ julli ci waxtu moom c'est dangereux pour un musulman wala pour un vrai musulman waaw kon dafa am solo kon jullil ca sobe ba moo tax ca jeexital ba dana salaa bi najaasatin jullil ca sobe ba ñaareel ba mu ne wamal lañ yajjiti boo boo amul maa an ndox yax siloo dana ko raxas moom it salaa jullit bi najaasati yi ca sobe ba amoo ko yére bi nga am mu wóor na ni amoo beneen ndox yow laab nga mais benn yére bi la mais jullil ci sobe ba a ah, ñëw dara mais lépp ci ñàkk bañ a julli dégg aw wala sax ñeenteel bi lam yakun nekkul àndahu ca moom maa yalbasu amul lu mu sol amul dara lu sol lu dul xataa yax si lu da koo raxas kookit nag ni wóoree ni nag boo ko julliwul waxtu wi génn sallaa bi ñesaa sa sin ko julli na nga julli ànd ak sobe sa moo tax wax xaafa nga ragal xurujal waxtu génn waxtu wa kon sallaa jullit bi najaasat yi ca sobe sa kon dafa am solo ñu bàyyi xel ni lu mënti xew doomu alama bi julli ak julli ci waxtu dafa am njariñ nga def ko yow jaam bi waaw ndax kat daganul moo tax borom téere bi ne wala yaxilu daganul taaxiru salaati nga yéex a julli jullit wërta yéex a julli kalso warul tax nga yéex a julli football warta yéex nga jéex a julli làmb warta yéex nga yéex a julli seetaan football warta yéex nga yéex a julli conférence sax ngeen baal ma warta sax yéex nga yéex a julli yow heure boo nga daan julli jàkka jàngoog mais arrêté la ngeen julli nan moxtaar beeg ah, jamono neexul moxtaar beeg boo demee conférence bi nit ñi dem ak ah hmm. kon walaa yaxil du dagan taaxiru salaati yéex a julli ne adama tahaarati ngir ñàkk laab waratina koo xam ni nag ñàkkul laab wa man faala ku def loolu ah zalika dëgg-dëgg nga def ko faqat asa mooy nga rabbu sa borom te nag mooy nga sa borom mooy li yàlla wax defuloo ko tu la tenir à tête waaw ah, ci dëgg-dëgg mooy nga rabbu sa borom waaw ah, kon dafa am solo jaam bi xam lu muy def waaw ah, kon nag mbokk yi tey lii la indi woon ngeen xam ko yéen jaam yi Maintenant, nag am na ku posé question ñu naan ko Mera ca Géejawaay mu posé question ne ben. mooy que bi mu ne jullit bi ci boppam que bi ci boppam mu ne mom dal dog mu ne ndax am na julli timis wala amul julli timis soxna Mera julli timis fekk nodduñu ko waruñu ko julli ndogu bu desee cinq minutes lañu war a dog bu ñu dogee ba pare boo dog ndax ndogu ak dog bokk dog mooy nga lekk tàndal ma naan tuuti kafe dem julli ji ndogu nag mooy nga tiim lépp Tim lip kom ngañ seen toog di lekk nga ne man damay dama woor ba sonn damay damay lekk ba pare doog a julli mu ne loolu da tere waaw da tere kon bàyyi leen ko xel bu baax kon soxna mera li ma lay digal mooy heure buñ ne dog leen dog jot na dogal nga lekk sa tàndarma naan sa tuutu café ñu noddu nga julli ndax diggante cinq minutes nag yàggul nga julli boo jullee ba pare nga toog nag ndogu loo bëgg a lekk lekk ko bu dul loolu boo jullee amoo julli amoo timis waaw soxna Mbera posé waat beneen question géejewaay la ba léegi rek mu ne ki nga xamante ni maanaam moom day gis mbaax mais bi muy gis mbaax li mu jiitaloon dafa takk deretu mbaax mu jël ko raxas ko bi mu ko raxasee ba mu set comme ni ñu ko waxee indi ndox yi mu ko war a raxas raxas ko ba mu set teg ko fële ñëw gis ko taq-taq bi am ci te terewul moom raxas ga raxasoon na ko waa léegi nag ne muy laaj ndax yére boobu ndax laab na pour julli walla laabul yére bi laab na yére bi laab na parce que daa am tâche yoo xamante ni bu taqee ci yow dootul gaaw a deñ deretu mbërëg da cee bokk moo tax dañ naan la bu bu ci saa si bu la dalee rek defal la tout nga jël ko raxas ko ndax bu woowee loo ko raxas raxas raxas terewul day des kon set na laab na waaye bàyyi leen ko xel ndax am na yenn façon sobe yoo xamante ni yenn deret yoo xamante ni bis bu yàlla defee yére bi taas ci raxasoo ko ca set set ba dootul dej ba faaw te loolu deretu mbërëg da cee bokk waaye terewul mën nga cee julli wàññiwul dara kii ci boppam mu ngi tudd Maître Far Diallo mu ngi dëkk ba Kër Cheikh muy laaj ci wàllu diineem mu ne ki nga dogal na daa julli ba pare war a naafila mu ne naafila gi day bàyyi ba ba ba fajar gi di waaj a jot ci guddi gi mu naafila far yàlla def mu karmat te naafilawul wax kooku ndax am na koor walla amul koor am na koor waaye yool bu rëy nag ñàkk na ko ci ndax weeru koor naafila da cee bokk te nag te yonent bi moo ne loo leen daan jëf ba weeru kor jot ci lu baax double leen ko ndax yàlla da leen di tripleel waa wa amalahu mu daa afun jëf ji jëf mu daa afun yàlla nee na da koy ful loo def ci benn lu baax yàlla da la koy defal ay julli te loolu ci weeru koor dong la am kon ñàkk naa fi la terewul am nga koor waaye nag li gën yow jullit bi mooy ngay la ndax yool bi ni mu toll jaam yi kenn ku ci ne war na koo bàyyi xel beneen bi ci des tabaarakallaahu soxna Xadi Gajaga moo ko wax balaa bi dëkk soxna Xadi Gajaga nee na kat ki nga xamante ni dafa woor waaye woor gi mu woor mu am lu muy jëfandikoo maanaam jëfandikoo bi mooy lan dafa togg ba ngoon mu ngi ndax si saf naak saful ndax ñam gi mu ko ñam ñam gi mu ko ñam na wala yàqul koram bu dee si ñam na ko lislaam daganal la nga ñam pour xool togg gi ba niveau la ak cafka fi fan la yam waaye dañ lay wax na la boo ko ñemee ba pare nag bul continuer eggale cafka bi ci sa baat parce que saf-saf ak neex-neex ak cafka ci làmmeñ la yem ci làmmeñ bi la yem de looy lekk nga yëkku ci guu ci làmmeñ bi la yem eggul ci put eggul ca biir kon loolu ngeen bàyyi ko xel bu baax kon mën nga koo ñam mën ngaa ñam bi ñam dute bi mais nag boo ko maccee wala nga ñam ko da nga koy da ko naan ñam ba yëg ko ni saf na nga ne ko tëf bañ koo eggalee ci sa biir boo ko eggalee nag sa koor lay yàqu boo ko eggalewul ñëwul dara sa koor yàquwul kon mbokk yi loolu la ñu indi tey ñoo ngi ne nag bu baax mu Moustapha Gaye suñu commerçant bu mag bi léegi macha allah moo ngi dixième waaw moo ngi dixième en face mu di Modiba waaw foofu ci dixième bi fa la nekk yore fa place bu rëy. Moustapha nag bëgg nañ nga sponsoriser incha allah li def ci ci weeru koor bi waxtaan wi ci kàttanu yàlla ñoo ngi lay eh, ñaanal nag balaas ba yàlla ko yàlla barkeel yàlla daldi ko sutura Moustapha Gueye ah, ku sell ku baax kuy jaay lépp nga fa ku fa soxla waaw ah, daa mel ni rek mini marché la waaw comme ni ko genre yeneen kii léegi daa mel ni rek lu fa waay soxla yi tubaab yi indi ci réew mi yépp moom da koo def genre Euh, tabaarakallaahu magasin boo xam ne bu la neexee grossiste man nga faa jëlee bu la neexee jël détail bu la neexee nga ñëw fa a 24 heures sur 24 bu la neexee sax nga def commande kon Moustapha Gueye tabaarakallaahu nu ñu koy waxatee jannatul maquette marki waaw waaw jannatu euh, maquette la tudd waaw mhm, waaw marqué wala jannatu marché bu ndaw ni ñu ko mën a waxee rek waaye yéen ñëpp bàyyi leen ko xel moo ngi dixième tabaarakallaahu ci riba foofu euh, en face Modibo ku fa ñëw incha allah la nga bëgg da ko am ñoo ngi koy wax nag mu ñëw sponsoriser li des ci koor gi ndax ñu mën ko wane bala ñuy commencé ti commencé ko incha allahu taala kon bu ko defee rek yàlla ñu yàlla defal jàmm di leen dug daje nag ñëpp nañu waaj ñu dem kër maam El Hadji incha allahu taala tafsiru quran bi incha allah bu ñu julee tisbaar ba pare ba tàkku tàkkusaan ci kàttanu yàlla ci taxawaayu ci teewaayu Serigne Ahmed. njëgeen bu Cheikh Oumar njëgeen ñu naan ko Pa Ahmed di jóge ba kër Issa ah, tabaarakala Serigne Malick loo nga xam ni seen maam suñu maam la di jóge HLM Cheikh Tidiane Ndiaye di jóge HLM tabaarakallaahu fekk fa Pa Ndiawar ak alaaji Yoro di jóge Mbour 4 alaaji Yoro njëgeen bu Cheikh Oumar njëgeen suñu bàjjen Binte Kaar ah, ajaratu Sagar Dieye ak waa Loyir tabaarakallaahu ñoom ñëpp rek ku lim rek juum waa Galadia ñoom ñëpp ñoo ngi pare saa su ne ñuy ñëw ci ndigalu xalifa bi alaaji Muniiru Njigéen kon yéen ñëpp ñoo ngi leen di jox di daje incha allahu taala tabaarakallaahu ci kàttanu yàlla incha allahu taala eh, ñu seetaan ko bu la neexee nag suivre ngeen mën ngeen ko suivre ci SK TV ci alhamdulilahi TV incha allahu ak ci Serigne Mbaye Fall Njigéen Babacar Njigéen incha allahu en direct. ci TikTok wala ci Facebook kon bu ko defee incha allahu taala ñun ñëpp nañu xaar tafsiru Qur'an kër alaaji Mouhamed Ndiéguène ca xadara ba à partir de 14 heures ci kàttanu yàlla wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.